mooy danoo jëm ci bés bu mag muy bésu le mais mai ñu ànd ceeg Mo gét Events ànd ceeg Pape Souleymane li ànd ceeg As Bekaay Mbaye ak la Bantamba TV ak suñu mbokk internautes yi yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di woo ci bés boobu ndax bés boobu bés la boo xamante ni journée de la jeunesse la ndax jeunesse bi ñoo ko moom kon ñu ngi ciy woo amateurs yi di ci woo supporters yi mbokk yi tey Boucher la ñu seet si fii Ketchup fekk ko Géejawaay Boucher maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Baye Balla maa ngi lay fay maa ngi lay siyaar bu baax. Mhm. waaw di la jox sa wàccuwaay. Mhm. di la nuyu bu baax a baax ah di nuyu Lamine. Mhm. di nuyu Sénégal di nuyu monde di nuyu kilifa diine yëpp. ñu ngi nuyu kilifa diine yëpp. di nuyu kilifa aada yi. di nuyu Sénégal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. di nuyu suñu kilifa suñu wasila sëñ Mountakha Bassirou. di nuyu suñu. yaay suñu papa di nuyu suñu soxna di nuyu suñu waa kër di nuyu suñuy xarit ak suñuy am di jàmm. Mm-hmm. waaw. mais looy mel ni ku nu seexal nii wala pression bi la pression combat bi. Baye Balla. Mm-hmm. làmb ji. làmb mm-hmm. ji. li ci des bareetul. wax nañ ba tey jot. li ci des matul sa deux semaines. wax nañoo wax a wax wax ba àdduna bi yëpp bàyyi ñu xel. léegi jëf rek moo des. mais jëf rek moo des est-ce que di nga dëggal sa bopp parce que combat revanche ngay bëri parce que Aladji Mbaye da ngeen a bëri mu daan la jël bu rëy nag ak làmb gépp nangu nan ni daf daan jël bu rëy bu amul benn werante tey làmb di dox ba làmb boolewaat leen sa diggante ak Aladji Mbaye nekk diggante boo xamante ni amateurs yi dañ ko bëgg naka la Ketchup nar a ñëwee ci revanche boobu noonu. bàyyi baal àdduna loo gis yaa a des hauts et des te dikkaat force la mhm. kenn mënut dem rek des mhm. da dikkaat force mhm. dikkaat googu nag foofu laa toll alaaji mbay la ma sekkoon ak moom wees na jamono ji li ñu war a jëflante moo nekk sama kanam yaa ngi naan pression man pression du ma jàpp taalibe sëñ Tuubaa Xaadim Rasulullah du ma tiit duma ragal te lu taxaw sama kanam pour man dama ko war a faxas lu mu yootu pour man dama ko war a jot far force incha allahu rabbi alaaji mbay Ketchup ma woon ak biiru benn. Mm-hmm. non da bu njëkk ba da nga wax lu ne Alaaji Mbay ba buntu 2 yi nga wax lu ne bés ba ñëw Alaaji Mbay ñëw daan la avec la manière foofu la ñu waxee te Alaaji Mbay nee na ak ñi koy indi Ama Baldé da koy indi. Malaw Seras da koy indi ak yeneen champion yoo xamante ni bis boobu ni Alaaji Mbay nar ñëwee boo gisee champion yi ci ginnaawam loolu du la déstabiliser. mais man ànd naag champion bu ne ci àdduna te alaaji mbay maa ko ëpp ñiy nekk champion yi nekk sama ginnaaw ñoo ëpp alaaji doole foofu ñoo ëpp ay champion doole bokkul man loolu mënu ma déstabiliser benn yaa ngi naan làmb ja dafa ma daan à la manière ak à la valeur na jël lépp combat boobu combat am la woon bii sama combat la ndax combat boobu coow lu ci moom la mujj waaye bii combat bi ci man lay mujj incha allahu ñoo ñu nga wax ñoo koy indi yëpp buñ ñëwee ci buntu géew bi la ñuy yem maag moom ñooy dugg ci biir jàkkaarloo. te bu boobaa lay xam ne lépp dëgg la. combat boobu ñu bëri nee nañ Boucher pression la doon bëree parce que visa Amérique la defoon ci poste bi boobu gisul lu dul dem Amérique pression boobu mu doon bëree nag moo ko daan ci combat boobu est que boobu ak bii dinañ wute. moom laa lay wax. la xewoon ci combat boobu yëpp fàtte naa ko. Mhm. fi mu nekk nii nu ma ko defar. baal la bu ma wax loo waaye ci combat bi. non dama bëgg nga wax parce que ñun loolu la soxla de ñun waxanu fi indi de wala. Lamine waxal bu dee wax indiwul fi ñu te tey micro dem dañoo bëgg nga wax ak ñi lay seetaan wax ak alaaji mbay parce que alaaji nee na moom dana la daan ñaari yoon. bëreloo ba dafa la bëreloo ba nga xoox mu daan la te di nga ñëwaat arène nationale mu daanaat la. mais yéen boo leen taxawee fii di jottali ay waxu alaaji mbay mooy da ngeen wax hmm. lu leen neex rek. mais boo leen taxawee naan alaaji mbay moo ma bëreloo ba ma xoox. lonkal la <laughs> mais lamb ja foofu la saf ak la fay neex yëpp maa ko def. Hmm. man maa bëre. maa xatar bi maa wéyale maa mbot maa zongale maa bitter ni maa def lu ne. moom nee na def rotation di ko tegal 16. muy wër fu mu daanu da doon wër fu muy daanu bu xam am na xeer wala amul xeer. non nee na mu caxabal la lonkal la. doon xool ndax fi muy daanu am na xeer wala amul xeer. Hmm. pour bañ cee dal. bi muy def nii nag lay xool di tàllal tànk di la lonkal. tànk bi laal sama zone bi. sa zone wax na ci dara newu ci. combat boobu defuñu ma lenn man maa ñëw bëre. erreur boobu am ci te waa CNG reconnaître ñu loolu li ñuy reconnaître mooy la 15. kon da nga bëgg wax yaa daan sa bopp ci combat boobu. daanuuma. Hmm. CNG lu tax nga ne reconnaître combat boobu. demal nga xool nag El Hadj May nox victoire El Hadj May fu nekk nii ci deux défaites la toog ak benn victoire. Hmm. ak benn diin sans verdict sans verdict bi man ak moom la défaite bi wuli la ko daan ñaari ñaari défaite yi mu am moom jëf jël moo ko daan te jëf jël man maa ko defal bagage Amérique beneen défaite bi. Adama Diouf. te Adama Diouf man mën naa koo jàngal bëri. may wax ak yow de. Adama juuf nga wax de. Adama Diouf man mën naa koo jàngal bëre. Adama Diouf du cuune de. déggoo ma de. bëre du lu ñuy waxantu bëre dañ koy jëf. man ñi ma xam dëgg xam fan laa yaroo xam nan laa màggee xam li ma tarbiyoo ci làmb ak li ma bàyyi yëpp ci làmb xam nañ ne làmb duma ko fawee. Hmm. bu arbitre ne prix la cay neex maa koy def lañ fay jëli maa koy jëli te incha allahu rabbi changement dafa am ci diggante bi hmm. ci làmb bi hmm. changement bi nan la nekkatul bëre lan la xeex lay jeexee da ngay bëri da ngay xeex xeex ba mu jeex hmm. su ndax li ma bëggoon am naa ko te gis naa ko boor bi ne prix dinaa ko dóor ba mu tëdd du ma ko daanee nenn jàpp ma lonkalu ma bitërniw ma xàttar biwu ma wëru ma Alaaji Mbay dama koy dóor ba mu yaa ko wax de ci télé ngay waxee ñu lay seetaan. Sénégal lay waxee. ah Sénégal lay waxee. Ama Baldé ko indi de. Ama na ko indi. man yàlla laa àndal. da ne da nga am ay karaw dënn. xoolal na ànd ak Ama waa këram yëpp. man yàlla laa àndal jour boobu. Ama ne da nga yàlla ak yonent bi Serigne Touba laa àndal ci biir. waaw dama bëgg mu leer tijjil ñu xool Ama ne da am ay karaw dënn. moom moomu day wat chaque jour. <laughs> Ama su ma amee karaw dënn moom xanaa karaw ñax la am. <laughs> Ama paa la de. yéen lay nax nii rek c'est un <laughs> c'est un vieil kay. sama sarax ama ah, maa ngi moom ñoo bokk sarax rek. maa ngi moom ñoo bokk sarax. nee na yow alaaj may pour mu daan na stade bi yëpp tàcc rek. mais ñun tàcc moo ñuy may. tàcc moo ñuy may doon yow bëgg bureau bi moom bugul bureau moom moom mi ngi nii buy dem stade du stade ba mu fees del di wër ay tàcc. taxaw naan ay gisuma dara caaw sa xiir ak lu ne. ama man la faral. nga ama man la faral wax jee fi ne rek. ama man nag moom dañoo dund lu ne nekk Amérique toog fa 2014 15 ñu nekkaat fa 2016 ñu nekkaat fa ama du ma jël di ma di jël Aladji Mbaye di ko def sama kaw. da nga wax ne ama sa xarit la sa gaañ la. sama xarit la du ma ko daw. sama xarit la mais nag loo xaritoog moom xaritoog moom Aladji Mbaye moo gën a doon xaritam ndax moom la juddoon dool yaa na doog moom na na juddoo moom écrit tal mi ngi am lu lu wow koŋ nii taxaw di ko am na combat boppam Modou Lo lay bëreel roi des arènes lay bëreel moom boppam la tal ama ah, ay saraxu boppam lay boo amee sarax bu mu jox alaaji mbay da koy def ci boppam alaaji mbay na lijjanti ay saraxu boppam lijjanti boppam ñun ñu ngi suñu bopp et eh, toujours Ama Baldé ak alaaji mbay antan nga loolu alaaji toujours kan Ama Baldé ak alaaji mbay mais alaaji mbay chorégraphie bés tàq lañ génnee ama ah, man am ah, yow yow li ngay woote nii yëpp ci man la fekk baax hmm. man waruma man wutuma wàllu ci tuus wutuma wàllu ci bëre wut yooyu wutuma ko de yooyu dama koo am dafay ne alaaji mbay lu mu fecc ma feccer ji ko. Hmm. lu mu teg ma lalli. Hmm. lu Ama indi. Ama daa ma indi Ama dafa am combat Ama nan la ñëwee foofu. kii da ñëw bunt Modou Lo ngi ci bunt stade bi di ko xaar. <laughs> moo ñëwee. Ama mënul ñëw ci biir stade bi arène nationale Modou ci buntu bi la teg saison bi de xam na ne a ah, poulain may bëre bu ñëwee dina fi miiné foofu yëpp lay miine na ñëw. Ama ñëwal dégg Modou loo buntu stade bi lay miiné foofu dëgg am nga problème. léegi nag dañu bëgg a xam Boucher naka la nar a ñëwee ci bis boobu parce que loolu dugg si Boucher ci biir arène national loolu leneen la. waaw ambiance boobu dañu bëgg nga nga nga ñëwul ñu ci loolu. mais loolu open press bi moo moo moo léegi mu ñëw incha allah. Mm-hmm. sama open press maa ngi koy def le le bu neexee yàlla. Mm-hmm. waaw maa ngi xool parce que maa ngi xool na damay jël stade Amadou Bari. stade ban. Amadou Bari. Boucher Amadou Bari nga wax de. mais man du ma moroomu gars yi stade Amadou Barry laa ko bëgg a lal teg orchestre Pape Diouf bi. Hmm. ñoom El Hadj Keita Tarba Mbaye Sidi boo yëpp ñëw ñoom Baba Meng Thiat Seck ñëpp ñëw. Hmm. ñëpp laa invité ay Samba Diarra Mbaye Bass Thioung. Hmm. Ibro Naajo. mais Boucher. dañoo gis ne nga bëri Alaaji Mbaye ci li nga gën a mën a lal Alaaji Mbaye daan. xam a tey jii dafa jot ñu waxtaanee lamb ji tey jii. mënuñ fee nekk di la wax loo xam ne nii amut alaaji mbay moom da ngaa bëri moom la nga gën a mën a ci la la alaaji mbay daan ndax yaa ngi suuraale sa diggante ak mbay bu la àggee fa nga ko àggoon bu ngeen bëree yéen ñaar bala ko soo yéen ñaar bëri ba ruubaloo ndax yaa ngi bay xel loolu waaw dama xam ni làmb ja la cay neex maa koy def man bu ma bëriwul alaaji mbay du bëre su ma deful action du def action man maay buur làmb ja jour boobu léegi moo tax ma jël lépp tegee ne léegi xeex laa koy indil ndax boo ko dóoree dina bëgg a fay te buy fayu ma escanté ko mais bu ni ma la déggee fi nga teg làmb ji yombul trop la yomb. non dafa yomb man. dafa yomb non dafa yomb. da ngaa bëri El Hadj Mbaye mais El Hadj Mbaye mënu ma dal avec manière man maa koy dal avec manière. déedéet ah bu mais combat bu njëkk ba da ngaa ñëw andi lépp loo xam ne da nga andi ci lamb. parce que waroon yéen ci boppam yéen a mel ni ku seetaanul lamb bi man mënu maa jël. mais lépp luñ ko mënti seetaan loxo El Hadj Mbaye lañ yëkkati. loxo El Hadj Mbaye ku ko yëkkati. arbitre foofu lañ ko yëkkatee. waaw waaw mais doxul ta seen débat. seen débat non non ko seen débat ñun waxu esat ba léegi nii El Hadj Mbaye dañ ne moo daan bouger mënoo toog fii mel ni yaa daan El Hadj Mbaye da wax nit ñi la moom moo ko wax nee na maa daanu mel ni maa daan parce que moom fa mu toog di ko sentir xam na loolu nit ñee ne ko kii moo daan moo doon mu toog ne moo mel ni moo daan yaa may dinaa ko indil ambiance bu saf saf indil ko bàq bu bees tàq indil ko sañ-sañ bu wóor indil ko xeex bu metti indil ko bëre bu soxor mais dama gis ne dafa mel ni yaa ngi yee fitna quoi nan laa yee fitna dama gis ne dafa mel ni da nga songu Ama Baldé yaa ngi yee fitna nan laa yee ndax Ama Baldé danga am ko Alaaji Mbay toll te boo toogee fii di menacer Alaaji ah, Ama Baldé te digganteem ak Alaaji Mbay dafa mel ni buuse da am ci wéeru nee naa la taalibe Serigne Touba Xaadimu laa muy Ama woo muy keneen ak keneen ak ci man Serigne Touba rek laa yaakaar gëwma lu dul xaadimu rasul wax naa la ko cent cinquante fois man sëñ Tuubaa laa yaakaar sama lépp moom laa ko teg moom nee na ama moo koy ngemb moo koy wutal mystique ama dina ma yeew dina ma def lépp lépp wax na ma ko keroog bi seen TV tëjee biñ tëjee caméra yi nee na ma ama moo ma yeew moo may def lépp ama daal moom moom làmb ji mooy moom moomu mystique jëlal lépp yàlla na la ci yàlla dimbali waaye maag Alaaji Mbay sëñ Tuubaa dina ma won yoon wi ma man sëñ Tuubaa rek laa benn question laa am waaw muy Boucher ku ne xam Boucher ku ne xam na ni jàmbaar la Boucher ku ne xam na ni ay ndaanaan nga daa àndal man gisatuma ndaanaan yi gisatuma mbër yu mag bi boobu ba léegi ñu ngi wax du tudd Ama Balde ak El Hadj mais gisuma ñu tudd guy gi euh, euh, euh, Ketchup ak Balla Gaye wala Ketchup ak wala Ketchup ak lan mooy problème bi non problème amu ci guy gi new fi du ko fi fekk guy gi nekk fi mi ngi États-Unis du ñëw xalaatu ko dafa nekk ci ay préparation nekk ci ay combat am Balla Gaye dafa am combat dafa nekk ci boppam damaa wéeruwul fenn ñooñ ñëpp teguma leen dara teggil naa leen lépp man bis ba mag Sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñooy ànd ci biir géew barki Serigne Bamba doole ji may àndal da ngaa xam yoo xam ne da yaa wax loolu. billaahi wallaahi taalaay Balla Gaye sama xarit sama doomu ndey teggil naa ko lépp na toog seetaan may indil ko ndam li guy gi teggil naa ko lépp Lac de sama frère teggil naa ko lépp ñëpp tegg wiiruwuma ci mindee